Euh, kër Serigne Fallou ak jumaa ji yaakaar naa ci kanamu ngi gis gi fii dañoo seetlu ne nit ñi dañ fiy taxaw di ñaan ak euh, dafa mel ne daal dafa mel na lu soppeeku barabu ñaanukaay euh, yow nag xam naa ne kenn nga ci magi talibé yi ñu la doon dékk suñu micro en tant que Tawfekh Production di la laaj yan leeral ngay def ci wàllu màggal gi ak yu aju ci asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yàlla sunu borom def sëñ Fallou yàlla yokk koy leer te taas ñu ci barkeem waaye di ñaan sëñ Fallu dafa jàngale lu bare bari ci doomu aadama yi jàngale lu dara bare bari ci doomu aadama yi mooy lim bëgg sunu borom bëgg yàlla bëgg yonent bëgg xaadim rasool bëgg alxuraan moo ko may lii mu am waaw ndax jàngale nu bare bari ndax ci arab euh, bare bare bare arab wax na ko ci moom kon loolu lu ngërëmal sunu boroom la loolu moo ko waral lu ñaan sunu borom mu may ko ko. jërëjëf jërëjëf sëñ bi kontaan nañu lool jërëjëf jazaakallahu xayr. maa ngi jàkkaarloog ak uh, jëwriñ ju baax uh, yaakaar naa uh, ci Baye Fall yi la bokk moom macha allah solo na solo Baye Fall gu amam solo ñu tàllal ko suñu micro Tawfekh Production lan ngay wax ci màggalu Cheikh Mamadou Fall. waaw màggal gi moom li ma siy wax mooy am ndax euh, Touba dëkk la boo xamante bërëb la boo xamante ni lépp lu fi waaye wut si la incha allah di nga ko fekk ndax dëkk la xam dëkk la xam moom borom Touba moo ko defaral boppam amatul lenn loo xamante ne rek man na ko tilimal parce que fii moom dëkk la xam ñàkk jaruñ la tudd parce que sëñ Touba ay mbiram tànku kanam la mais amul tànk gannaaw rawatina ñi nga xamante ne mooy ay sëñ Fall ñi nga xamante ne ñoom la fi sëñ bi bàyyi xam naa naa li ma si xam mooy almune day gën ëpp loxo te mbirum sëñ Touba nii lay demee te mbirum sëñ Touba du taxaw at mu ne dafay gën avancé te lii kese na wax diggaa ñun nañ si séenu te incha allah mbirum sëñ Touba daal nii rek la man deme parce que dafa def lu kenn deful moo tax dana am lu kenn amul ku def na lu kenn deful am lu kenn amul fi mu toll nii adduna boo bëggee noppal da ngaa topp sëñ Touba xool ay bindam soo ko topp ka ne ko toppee da nga perte rek waaw salaamaaleykum maa ngi taxaw a ay soxna yu baax ñoo xam ne maa ngi dajeeg ñoom fii ci buntu kër Cheikh Mahamadou Fadal buntu kër Serigne Abo mel na dañoo ziare si woon soxna yi ngeen ne fan ngeen bàyyi ko. ñoo ngi bàyyi ko lan moo ne woon seen taxawaay tey jën yitte ngeen am ba tax ngeen ñëw fii ci jumaa def seen i muuraay mel ne da ngeen doon ziare ak yu demee noonu ana ban taxawaay moo leen fi. ah ñëw ci màggal Kazu Rajab rek di bëgg Serigne Fallou soxla yi ñu am yëpp mu taxaw ci dañoo ñëwoon ci jumaa ji ay añ. di ko def ay at at ci yàlla yokk ci barke Seydina Mohamed di relation soxna yi ak sëñ Fallou sëñ Fallou dafa mel ne soxna yi moom macha allah tabaarkalla da ciy am ñoo xam ne sax dañ ñaan ñoo ngi ñaan am am sëñ Fallou loolu bëgg googu noonu lan moo ko waral seen diggante ak Cheikh Mamadou Fadel yéen jigéen ñi nga xam ne ñëpp ah, rek sax ci xool xam ne ku ci am doom it ko ko rek ci barke ñaan même ma ko yàlla may barke sëñ Fallou kontaan nañ lool soxna si ñoo ngi lay siyaar bu baax a baax na def maa ngi sant sëñ Touba ana yan kàddu ngay eh, jàllale fii ci màggal. non di sant Serigne Saliou Mbacke bu baax a baax ndax màggalu Kazu Rajab moom Serigne Saliou suñu faalu kenn amul fayam moom waaw dafa sax ci xoli nit rek te ñëpp bëgg ko ñu ngi taxaw eh, kenn ci mbokk taalibe ñu fekk fii ci buntu kër eh, Serigne Fallou te Serigne Abo mu sëñ Fallou ne fi ñu fekk ko ci yaakaar naa ci kanamu ngi gis gi la mel fii sëñ bi dañoo seetlu ne nit ñi dañ taxaw di ñaan. Euh, lan mooy euh, solos loolu wala loolu ana lan moo ko waral. waaw ah, moom sawi loolu bokk na ci sëñ waaw sëñ Abdou Karim waaw moom doomu sëñ Fallou la te mooy sëñ Fallou mu sotti wax na ni diggante bi ku fi taxaw ñaan soxla yàlla dina ko nungu solo soose nag booy ñaan na nga ñaan lu baax loolu la wax xam kon fii ku fi taxawtee rek sa yaakaar dina yokku. fii ñu taxaw fii nii mooy. fii mooy barabu diggante mooy kër suñ Fallou Mbacké diggante jumaa ji ak kër sëñ Fallou nu di bari bu bari xiiwal bari bari ngëneel bari bari tuyaaba ndax mbooloo mi ku leen gis rek fépp fu ñëw ne xam ngaa xam ni fii xéewal fi nekk te ab julit ab taalibe fu xéewal nekk rek war na ko dabu ji kon ñu ngi ñaan suñu bopp yéen ñaan yéen tam lépp lu ngeen bëgg ci lu baax yal ko suñu borom boole yal ko teew ay déwén déggan ngeen yokk ñu yokk ba yëg ko njabootu lislaam gu barkeel aaju faju xéewal yu sax dàkk yaa ngi bàyyi ko fan ñoo màggal si man nag maa ngi dëkk Ndindi bu Sëñ Fallou Mbacké fa laa jóge nii mais dama dellu sama kër nii fa laa jóge nii bu soobee incha allah. jërëjëf jërëjëf ku dellu kër ga bu soobee yàlla. jërëjëf kontaan nañu loolu. alaaji falilu sa lu ñor mu jebal baayam ci réew